ñu daal di koy dooree <laughs> ak le soleil yéenekaay mi daal di dikk nag ci caravane yi ki meeting yi mu daal di nag fësal euh, nataalu candidat yi nag ñu ne ñu ngi ci dernier jour pour convaincre. Ah, bokk na ci ñi gën a fës ci ñi nga xamante ni daanaka ñoom ñoo jëm ci wàllum xëccoo gi ni mel ci pencum ndaw réew ma ci seen de boo ko ñi nga xam ñoo ci gën a ràññeeku ñoom gi teg seenam nataal ci xët gi dellu si waat dañu xamante lu tukkee ci wàllum meeting bokk ci wàllum caravane visite de proximité yi nga xamante ni jot naa am Ousmane Sonko Abdoulaye Sylla Thierno Alassane Sall président Macky Sall bokk na ci ñeneen ak ñeneen Amadou Ba Barthélémy Dias nga xamante ni ñoom la ñuy féetee ñu bokk lu tukkee ci wàllum xëccoo bi nga xam mooy am ci biir Sénégal ak lépp loo xamante jot naa jëm jëm ci wàllu meeting yooyu nga xam ne moom la gaañ di amal kenn ku ci ne daanaka am nga sa tànne fileeg minuit amal li nga xamante daanaka moo di say dernier kaddu ngir fas yéene convaincre ñi nga xam ñoo di askan bi te nag gën caa fës tey ji daana ci bokk ay meeting ak caravane yu ñu fas yéene organiser le quotidien yéen kaay moom itam euh, xëy daal di wax ci candidat yeeg fan yi mujj. nekk na ci li nga xam ne daanaka moo di seen ëllëg ëllëg daana ci bokk seen dernier virage boo xam ne fu mu toll nii nañ ko teg ci seen ay mbir te li ni tamit gën naa dëggu ñëwal pàcc goo xam ne am na solo lool mm. la tax na le quotidien yéen kaay dellu waat dañuy xibaar ne lu jëm ci wàllum programme introuvable bi nga xamante ni jot nañ koo nemmeeku yéen kaay dañuy ko bécc ci li nga xam daanaka moo di penc mi gaa ñi daal la ñu gën a nekkee jot na caa bokk ngawti ngawti ci ay wax ngir fas yéene convaincre ñi nga xamante ni daanaka ñoo di askanu Sénégal te mu ne day boobeek léegi ci fin de campagne ba nëgée ni comme nemmeekuñu programme bi ni mel amul benn liste boo xam ne jot na ko présenté la ca bokk daana ci duggee ci wàllum tànneef boo xamante ni daanaka ñu ci baree bari jot nañ fa am ñëwal li nga xamante ni daanaka dinañ ci dellu si waat leneen loo xam ne daana bokkee ci wàll li mooy la tënku ci li nga xam daanaka moo tukkee seen wàllum discours bi nga xamante ni jot nañ koo becc ci kanam askan bi li ni mel yëpp dellu si waat ci yoon bu yaatu lool di xibaar fu mu toll ni tembe ëllëg nga xam ne war naa mën a am ci diggante liste yi nga xamante ni daanaka ñoom ñoo lalu ndax gën caa fës ñi nga xamante ni daanaka ñoo di Pastef sàmm sa kàddu ak liste bi nga xam ne moo di jàmm ak njëriñ bokk ci li nga xam ne moo di sàmm sa kàddu ñoom ñëpp daal tey jii jot nañoo wàcc lu bari lool jot nañ ko wër kàddu yu bari jot nañ ko yëkkati waaye daal amul dara loo xam ne tënku na ci ab programme guñ mën a lim soxnaay daal ñu dem ci Walf Quotidien moom mi daal di addu jëmee ci taxawaayu Barthélémy Dias ne dinañu daal di féete ère bu bees mu di la cohabitation foofee ci pencum ndaw réew mi ab xëccoo gu fas yéene am wala sax nag te loowaale ci li nga xam ne moo tukkee ci ay député moom la yéenekaay gi jot a xëy dañu xibaar ne Barthélémy Toye Dias tête de liste bu coalition sàmm sa kàddu moom moo yëkkati yi ni di xibaar ne bu yeboo daal ñu xam le foofu da ñu mettre tamit li nga xam moo nekk nga xam moo di politique publique yi nga xamante daanaka moom moo taxaw te li lépp leen ko fas yéene may daana ci bokk tànk ñu nga xamante ñoo di askan bi ndax jàpp ne la liggéey fu toll nii jot naa war a joxe résultat goo xamante ni cohabitation lu mënul ñàkk moom lay doon ca nag pàcc daana ca bokk assemblée nationale Anta Babacar Ngom promet d'être la porte-voix bi nga xam ne des femmes moom la fas yéene doon ci péncum ndaw réew ma tamit lépp loo xam ne moo di seen ak bëgg ak mébét ci pencum ndaw réew ma soxna daaw ñu dem ci les échos yéenekaay mi maire bu futt moom Barthélémy Dias da ci moom moo wàccee ci wàll gi ba tax na na daal kenn ci moom di Ousmane Sonko la muy wër lool ne kot la moo di ab sacrifice li nga xamante ni daanaka moo di wàllu campagne moom la Barthélémy yëkkati comme ay accusation daal di ko teg ci ndodd Ousmane Sonko waaye li ni mel nee ñoom sàmm sa kàddu ko ko may benn yoon te loolu daal du mën a antu ndax fu mu toll ni témbé nga anal li nga xam moo di deret fii ci biir Ndakaaru moom du mën a nekk luy antu ba tax ni ñoom seen jëm bopp duñ ko may lu jëm ci wàllu opportunité yooyu lée beneen tontu boo xam ne benn jëmm ji moom la yitteel Farba Ngom moom lay wuyu ab réponse moom la yëkkati daal di koo teg ci wàllam démb daal lu mel ni xeme moom la yàkk Ousmane Sonko boole ci ne daal menace nga xamante ni ko yëkkati dafa bokk ci tollaay dëna loo xamante yàgg na lool ca gën nag wet muy dellu si waat xibaar ne bu fekkente ni ànd ak Macky Sall mu nekk li nga xam moom lay doon kon loolu nekkul dagg yi nga xamante jot na ko yëkkati ndax kàddu ni mel nekkul ab dëgg gu mu wax leneen loo xam mooy fu mu toll nii témbee pare na ngir rendre compte parewul pour rendre compte kenn ku ci nekk ndax nee na amul lu dara loo xamante daanaka lu mu am lu dëppul ak yoon lépp kàddu koo xamante ni daanaka ab gone gu ñu yar la mu taxaw ci penc mi di wax lu ko neex jëmale ko ci ay nit ndax amul dara lu mën a indi ci moom lu koy taqal soxna euh, ay daam mu di euh, Vox Populi mu xëy ak mbiram ak taxawal gi nga xamante jot na am fii ci biir Ndakaaru yéenekaay gi xëy duñu xibaar ne foo ko natt jot na ko weesu Sonko cherche à saboter li nga xam daanaka moo di seen dernier virage tukkee ci wàllum campagne waaye nag ñoom duñu répondre ci ci urne a Barthélemy Toye Dias la ñëwal fi nga xam daanaka moo di fii ci biir Ndakaaru ndax jàpp na ne gaañ ci yoon bi ñu nekk ak tànk yi yëkkati du dara nga xam ne moo tukkee ci biir campagne bi saboté li li nga xam daanaka moo di mëbët gi ñu àbbu ci mëbët gi ni mel tam mën sa ci njàmbaas kàddu ki nga xam moo di Bougane Gueye Dany ci biir Vox Populi mi dellu si waat ne phénomène de transhumance bi nga xam dafa taxaw ab œuvre de la boo xam ne fu mu toll tamit fas yi naa xëtu yéen kaay gi di Vox Populi di xamal ne bu fekkente ni choisir ngi continuer ànd ak Macky Sall moo fas ko def ko ab délinquant moom pare ngir dem prison te fas yéene toog lu yàgg lool dal ci xibaar yeneen yoo xamante ni wuute na ak li nga xamante ni moom la wax ci mbedd mi bokk ci ne moom daal amul dara loo xamante ni nit mën na ko ci tuumaal ndax seet wecc moom la def te amul dara loo xam daanaka mu koy reproché boppam te fu doon tontu waaye nag ci anam boo xamante ni jot naa tàng lool moom la yëkkati daal di ko becc ci tête de liste bu Pastef di xam ne que Ousmane Sonko lépp lu mu wax fu mu toll ni tembe la ko yóbbee mooy ñàkk xam bitim réew ak toog ci biir réew mi tëj giñ ko fi tëj waaye léegi bëggub defante te bëgg tam li nga xam moo di ay tontu bokk na ci li nga xam ne daanaka moo ko yóbbee attitude bi nga xamante ni jot na ko am te la mu def du dara du ab plagiat gu mu amal tukkale ko ci ab programme am te li mel jàpp na ne ab gàcc la ay kàcc yoo xamante ni yëkkati na ko te mu ñëwal ay ndëgg moom soxna ay daal ñu dem ci euh, lii di Source A moom itam dikk na ci Ousmane Sonko kàddu yamu yëkkati foofee ca grand Diouf ak Parcelles Assainies waaye itam ca Barthélémy Dias mi daal di fësal ab plaidoirie wam bokk ci li nga xamante ni daanaka moo di ab union européenne ak lu jëm seen wàllum kàddu ak lu jëm ci wàllum li nga xam daanaka moo di pêche gi yi ñu mën a gis seen ak bopp ci waaxu Sénégal yi nga xam daanaka fi la nekkee di fi amal lu tukkee ci wàllum napp ci geneen ak wet moom la mu amal moo daal li war a mën a leer bu leer mooy que Sénégal yi seen jëm bopp ñoo war a mën a bàyyi xel li nga xam daanaka moo di seen ëllëg xool bu baax a baax seen tànneef ci kan la ko jëmale ndax ñeneen ñi bu fekkente ne jot nañ amal au quotidiennement dinañ indi ay koy wax tamit bokk ci li

ñoom fu ni tembe la sàkk moo di ab vote goo xamante ni dañ ko amal seen ak ndodd su ko defee ñu mën caa gis seen ak bopp moo tax tribune quotidien dañuy xibaar ne sàmm sukat daal tey jële wàllum koom gi doon naa bokk ci ni leerul nañ fexe ba équilibre bi am partout niveau du Sénégal bokk na ci li nga xamante ni wàllum koom googu li mu leen yitteel lool yéen kaay gi dañuy xibaar ba ndégg ne Bougane moom mu ngay insister ci lu tukkee ci wàllum nécessité ngir restaurer lu jëm ci wàllum confiance boo xamante ni guy am la ak yi nga xam ñoo fas yéene ci biir Sénégal nañu defam ndëgër laay de sorte que la doon xoolee Sénégal wala ñu ko doon gisee nekk loo xam ne lu ant moom lay doon la amoon ngir ñëw def seen ak alal ci biir réew mi ñu daal di koo delloo su ko defee juboo daal lu jëm ci wàllum fisc bi nga xamante ni jot naa teg ko dafa am doyo te doon loo xamante ni métti lool ci yenn bailleurs yi ba tax na bu fekkente ne jot nañ koo changé dina mën a lu ci bari lool mu am ak juboo diggante ñi nga xam ñoo di yenn investisseurs yi ci waxtu le affaire Azer ONAS bokk ci li nga xam ne ni ki démb lu koy fin firndeel moo di daal seen ak dernier virage gu ñu namm diggante commune yi ni mel lépp na jot na caa bokkee ba nëb sëy boo xamante ni ne da koy ci amal ab taxaw seetlu dellu si waat dañuy xibaar ginnaaw bi nga xam moo di meeting ga amal ci géej waay tëdd li si gini mel tam ni ki démb jot naa exposé ab programme goo xamante ni yaatu na jëm ci wàllum transformation pôle bu Ndakaaru waajoo di caa toftal li nga xamante daanaka moom la indiwaat yi war na ko wër jot na ko indi ñëwaat li nga xam daanaka moo di ci ay gox wecce waat ci kàddu yi nga xamante ni ko ci diggante ndaw ñi bokk ci waat li nga xamante daanaka moo di dernière année yi majoritaire bi nga xamante ñu ngi koy sàkku ëllëg ci biir bi nga xam ne mën na ko jural président de la république di Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye nag na ci doxalin réew mi ñu jàpp ne lu ci bari lool mën na ko indi jëm ci wàllum soppin

niki démb fii ci biir ndakaaru gën caa fës Parcelles Assainies fi nga xam moo di ci Grand Yoff li ni mel di wane waa Pastef dañoo jàpp na ndax danañ def kéem kàttanam na ci mi du kenn ku dul ñoom ba tax na grand panel quotidien dañuy xibaar ne tey jii kan lañ ci war a mën xaar ñe li nga xam daanaka moom mooy am ci ëllëg gi ndax gaa ñi kenn ku ci na jot ngaa yëkkati sa kàddu wala sa loxo jàpp na daal fi mu toll yow yaa gagné te final bu soxna Aïda enquête yéen a kaay xëy fësal photo Ousmane Sonko ak kii di Tahirou Sarr mu ne nationalisme et patriotisme débat glauque

lanterne kon fu mu toll nii tembe jot naa tegub table di ci wokk nga xam daanaka moo di Ousmane Sonko ne la tukkee seen wàllum xëccoo nañ ko amal ngir ñi xam ani kan moom euh, moom tam mu mel ni ay mbiram mi ngi gën a daal di doy bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi xëy dañuy xibaar lu jëm ci wàllum wéy lim enquête boo xam ne door na ko niki démb ñewal suuf buñ jàpp ne gaañ seen jëm bopp jot nañ ko ak moo ci anam boo ni dëppul ak yoon a

mel waaye lu tukkee ci wàllum accusation yi ni mel ne jot naa am wàllum titre foncier yi nga xam ne lim na ko ci biir xëtu yéene kaayam dellu si waat di gën a ci défense nga xam ne di homme d'affaires bi mu ngi gën dellu si waat lu jëm ci wàllum li nga xam ne fu mu ni tempe ay fee yu dellu si waat la ngir gën fësal li nga xam ne moo di position gi dox ci diggante ñi nga xam daanaka ñoo di héritiers yi ak ñi nga xamante daanaka ñoo leen nax ba jël seen ay suuf te koppar nga xam ne tam jot naa laale ci wàll gi ñi nga xamante ni ñoo ko jiite woon ak ñenn ñi nga xam ne autorité lañ nekkee ci biir mi gën caa fës ab goo xam ne lim nañ ko ca trésor ga waaye ci waxtu la yéen kaay gi dañuy xibaar ba ndiggéen ni ca Matam lu jëm ci wàllum docteur Mbacké mi nga xam moo écopé lu toll ci ñeen fukki fan ak juróom tam soxna ay daal libération yéeni kaay daal di dikk nag ca coow la am ci société générale ex SGBS e mu ne six nouvelles inculpations enregistrées. bokk ci li nga xam ne ab l'enquête moo ko firndeel waaye gaa ñi seen jëm bopp jot nañoo dellu si waat ngir gën a dellu si li nga xam ne daanaka moom moo tënk lu tukkee ci l'enquête gi mel ndax boobee léegi mënees na ca jàpp ne lu bari lool ci irrégularité yi nga xamante ni jot nañ koo wax ñi nga xamante ni daanaka ñoom lañu inculpé a dëggal amee moo ab détournement goo xamante moo nekk expert de la banque waaye na ci gën a wax ay préjudice yoo xamante ni société jot na ko subir te ñu teg ko ci wàll gi moo nekk li ñu ci ay koppar yoo xam ni mel yëpp ñoo ko nag tënku ci li nga xam daanaka moom lañ jàpp am nju njaay gu sëkk moom la ñu amal ñu ko duppee malversation présumée ñëwaat li nga xam daanaka moo di ci waxtu le dana ca bokk lu jëm ci wàllum paiement ak na nga xam ne la war a doxale jëm ci wàllum fisc soxnaay euh, daaw euh, mi fësal nag équipe nationale euh, du Sénégal Habib Diarra gën na caa fës moom mi lakk caaxi ni démb ba tax Sénégal daan benn bal ci dara ci digganteem ak ñi nga xam ñoo di Burkina yóbbee ko mu na tam Sénégal qualification war naa mën a gën a rafet ci waxtu yi tamit yéenekaay gi dañuy xibaar ne Edouard Mendy ni ki démb daal moom mënees nekk am de match delluwaat ci Salvateur ak la nga xam gi ni mel yi nga xamante ni jot na ko amal moo tam doon loo xamante ni am na solo lool ca gën a waxtu daana ci bokk résultat gi nga xamante ni jot naa taxaw kàddu ki nga xam daanaka moo di Pape Thiaw mi nekk coach de l'équipe nationale bu Sénégal ne résultat gi ni mel daal du dellu li nga xam daanaka moo di amtu compte ak seen ak ëllëg nga xam ne ñu ngi ko fas yéene ab jàpp na ne liggéey bi la ca des mu nga ca kanam soxna